jërë ngeen jëf mbooloo mi ñuy rafetlu bu baax a baax seen teewaay ak soutien bi ngeen def tey jii ci sitting bi ñu jagleel suñu nattaangoo bi di taskatu xibaar Pape Ndiaye lu war la ndaxte dama jàpp ne place su Pape du kaso te nag comme ni ngi nekk en direct dama bëgg a wax ak sénégalais yi ñu déglu ñu baax parce que réew mi defe naa ne jot na ñuy waxante dëgg te duñ ko raay jàpp naa ne Pape Ndiaye waxu fi lu jar ñu dugal ko kaso ba ma gisee li nga xam ne moo di liñ ko tuumaal dama jékki ba si yàgg ma ne lii de américains yi tuumaaluñ ko sax Ben Laden ndax nag am na loo xam ne xel mënu koo nangu ci foofu laay jaar lancer message juge parce que nag ñun dañuy déglu ñeneen ñuy wax kàddu yoo xam ne dafa jéggi dayoo tey jii dégg nañ ko mel ni Ahmed Suzanne Camara mu yëkkati fi ay kàddu yoo xam ne ci ñaari nit ñoo xam ne ci place bañ gën a liggéey place bu amal njariñ askan wi la ndax ci force de défense et de sécurité lañ gën a liggéey ñu réer mër mu am fit toog ñeenti yoon ci télé yi tuumal nit dëggal ne ñooñu dañ leen boobu ca booba procureur de la république ne dafa ubbi enquête ngir saytu mbir moomu leen waaye waay bu nekkoon ne dëgg rek moo ñor ñëpp foog naa ne Ahmed Suzanne Camara boobu leen waroon na dem wuy ji ak ñi mu tuumaal sax procureur daf leen waroon a woo ñu enquête leen kon ci ñu demee ba askan wi gis ne. justice bii dafa am kumbaam ndey kumbaamul ndey te saa ko yëkkatee ñu koy misaal di wax ne bu ñu attaqué li nga xam ne moo di institution judiciaire kenn ñaanul yàlla nërmeleel institution judiciaire ndax mooy cëslaayu réew waaye bu nekkee ne nag dafa am kumbaam ndey kumbaamul ndey ñun ñëpp war nañoo tiit ci loolu juge magistrat nit lañ mën nañoo juum ndax nit ku dul juum amul te nag jàpp nañ ne jéego yi senegal dox ci wàllu démocratie ruslu ne fi mu nekk ñu ne ay journaliste yi leen di tëj ci biir kaso Pape Ndiaye fi mu nekk maa ko fa jiitu te ba ma ko fa jiitoo ba ma jokkoog moom téléphone yàggul nee naa ko ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay mën a wax fi ngay toogee mais nag mi ngi nekk ak détermination mi ngi nekk ak fit mi ngi lancé tamit un message kon ngalawaay ñi nga xam ne Pape Ndiaye yàgg na leen a xeexal nañu gestu nañu bàyyi di wax journaliste yi bu ñu laalee seen moroomu journaliste rek ñoom ñëpp ñu tëb moo ne fii ku sa bët xonq nga daw si journaliste muy politicien di syndicaliste di néew doole kon bu journaliste amutoon kon mu ñaaw ñëpp ñu fi tëb di balballu ba ñuy nekk ci ron lal gi journaliste moo leen tàllal loxo génne leen fa kon dama bëgg dama bëgg si delloosiwaat xel yi am yërmande am yërmande am ndax nag dafa am loo xam ne ci réew mi faw ñu bàyyi ci xel du tëj kaso mooy régler problème u Sénégal kaso yi dafa dem ba léegi xale yi dañ ko boole seen CV maanaam dangay ngay génn kaso di bàkkoo ne dugg naa kaso ndax du gàcce dafa am lu wolof di wax wolof nee na kaso bàmmeel foo fa dem fekk fa ku la gën kon Pape Ndiaye fee mu nekk ca sëbi du place message bi nag président la république laa koy lancé ngeen may ma rek ngeen may ma rek dama bëgg monsieur le président de la république que ñu moytu di judiciaire yi euh, lépp ñu delloosiwaat xel yi ku nekk jouer rôle am ci démocratie groupe Walfadjri gàcce ngaalaam lépp lu leen waroon ci wàllu démocratie xeex nañ ko fan ko war a xeexee ak nañ ko war a xeexee respecter éthique respecter déontologie ndax kër gii. ah néew na homme politique bu bëtam xonq te ñëwul toog fii jooy ko kon dama ne ñun journalistes yi nag laay jeexale ñun journalistes yi nañu waxoon te dëgg suñu biir xam nga yenn fumisterie yi man bokkuma ci ay nous allons défendre pour le principe fii dama ne koor boo gis bu ñu laalee moroomam day jóg taxaw xeex musuñoo gis magistrat bu diingat moroomu magistrat am musuñoo gis policier bu diingat moroomu policier am musuñoo gis gendarme bu diingat moroomu gendarme ak ñeneen ak ñeneen koor boo gis ordre des médecins incendie am na ay bakkan rot fa ñu war a imputer ay responsabilité ordre des médecins jël ay responsabilité défendre médecins yi nekkoon foofu kon nag ñun war nañoo gën a góor góor xoolaat suñu bopp parce que nag c'est pas parce que Pape Ndiaye mi ngi kaso rek nga def c'est bon pour lui yat bi duma daal Pape Ndiaye bërki démboo Ndiaye man la doon manifester ba mu koy def xamutoon na yat bi dina ko dal kon bu ñu jógee ci Pape Ndiaye bu ñu landee mu nooy ci keneen lañ jëm kon nag gars mobilisation, mobilisation pour la libération de Padma. Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa.